Touba Touba monsieur le ministre de la pêche monsieur le ministre du travail monsieur le directeur du budget chers collaborateurs et collaboratrices des ministres chers collègues monsieur le ministre je lay nuyu di dama kontaan ci rapport bi ba nga xam ne est-ce que sax li ma bëgg a wax dinaa ko mën a wax monsieur le ministre yow bëgg nga Mbàkke am wér-gi-yaram te wér-gi-yaram mooy lépp monsieur le ministre mbooleem lu ma la waxoon ci commission technique pour la euh, pour le département de Mbacké plus particulièrement la commune de Mbacké ñi nga xam ne ñoo ma doyloo woon jox ma seeni xob ba ma taxaw fii war a nekk seen jaam war a nekk seen baay faal dimbali nga ma ci bu wér a wér a wax nga ma fi may teg sama tànk réponse yaa nga ne ngay nga teg di réponse yu leer nañ nga wax ma fi may teg sama tànk ak li nga yéenee def ci commune Mbacké yow yéene nga ñu ñu formé ñu ñaanoon naa la yéene nga ñu ñu am chambre froide ca marché ba nga xamné ne ku amoon sa xotti félicitaire bu bu bu bu bu xomaat ba bënn nga xalaat ñay jaay jën ca marché mbacké ba fas yene nga dindi loolu monsieur le ministre nga fas yene jox ñu ay chambre froide wax ko wax nga fas yene ño jox ay camion frigorifique bon bu nga dindi cionay jigen ña jigen ña nga xam ay jigen ni jambar lañ bëgg lool daanu daan seen doole am seen ñaq di ci faj seen soxla te mu lew leen domm boo leen indilee camion frigorifique foofa nañu organiser woo ne bu soobee yàlla kenn dootul bëmax benn jigéen ci kaw kasetu jën parce que dafa daf la war a fay kaset ba nga jë deme demee ca ca tefes ga ca géej ga indi fa jën ñëw joxe ko ko lu la neex muy jaboot dénga jëkk yi àtte jëkkëram faatu na yi àtte amul jëkkër njaboot gi wër ko loolu yëpp fas nga koo dindi ci commune Mbaké. bon monsieur le ministre coono boobu nga ñu fas yéenee dindil maa ngi la ciy sant au nom de toutes les organisations de femmes qui se trouvent dans la commune de Mbaké, je parle au nom de toutes les femmes marieuses et tous les hommes marieurs de la commune de Mbaké. maa ngi lay ñaanal manit fi euh, sama collègue Marie Pierre Diar lay jaar ndax dañ buñ nee diw baax na ñu ne ndax mbokk yaa ko wax te moo taxaw wax ko bon nga wone ko fii nag firndeel ko fii mbind moom mu ngi nii bon monsieur le ministre maa ngi lay ñaanal o non de la commune de Mbacké et du département de Mbacké ndax lu ngeen defal Mbacké rek defal ngeen ko dëkk bu tedd ba te am ngeen ñaanu sang ba fa toogal Serigne Touba am ngeen ko bon bu leen tiit bu leen ragal ñoo ngi lay ñaanal daal ci kàttanu yàlla ak yonent bi ak sa ñii nga àndal lépp lu ngeen sémb ci àdduna rek yal na ngeen ko eggali ci darajay Nabil Moustapha di ko ñaanal le président de la république Macky Sall nii seen président man nag maa ngi bokkoon ci ci <laughs> maa ngi bokk ci parti falaat ma dégg sax maa ngi ci parti démocratique sénégalais mais ci coalition bii ni ma gisee seen liggéey ni ma gisee seen nangoo liggéey ak fi président de la république bëgg a jëmalee réew mi man maa ñëw coaliser ak yéen ci élection locale yi def coalition fas yéene ànd ak yéen campagne ba naaw ci darajay Nabil Moustapha yàlla bu ñu ko kenn nettali yàlla nag moo xam kay gañe yàllaa ko xam waaye suñu borom dane sabab lu leen ma dimbali leen te fas yéene naa sabab lu ànd koog yéen jërë ngeen jëf jaraa ngeen boot jërëjëf merci